Aminata Lo Dieng nekkoon fi ministre ay jamono dañu ko teg loxo démb ginaaw ba nu ko njëkkee teg loxo ndax ñàkk jox ca couvre-feu moom nag ba mu fanaanee ca gendarmerie bu Wakaam ba noppi dafa yëkkati ay kàddu yu jàppee ne eh, dafa sax offensé kii di njiitu réew mi lu nu mel kon tax ñu woluwaat ko démb kon ñu nga ko fa daa ñu taxaw dana taxaw ci kanamu àttekat bi kon altine ki joxe xibaar bi nag doon rakkam bu góor daañu ci ñëwaat ci biir xibaar yi professeur Malick Ndiaye moom nag ma ngay artu ngir rek askan wi jox cër bu baax a baax lépp loo xam ne bokk na ci mesure barrière moom professeur bi mi ngi koy xamle ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru ndax gis nañu ne mbas mi dugg na fa yenn ci ay amphithéâtre sax jot nañu leen a tëj professeur sociologie bi nag wax ne askan wi ñëpp war a àndaloon genn say ngir rek mbas mi wàññeeku fi ba faaw. lu jëm ci njëguk saaguk aliment volaille ak bétail yokku na dogal bi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàlluk euh, sàmm ñoom dañu ko ñaawlu ba na ku moywul sax ne na ñu daanu beddi loolu nga xam ne mooy ñamte yi jóge euh, tey war a dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy volaille yi ak bétail yi daan ci dem ñaareelu pàcc xibaar yi ak biti réew lii kon moom mooy li ñu fas yéene faram-fàccee ne tuuti Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekk ci kàddu gi Cheikh Anta Gaye moo féete ci xaale gi dal leen ak jàmm ci biir xibaar yi wax nañ leen ko ci bopp bi nekkoon na fi jamono ministre ci nguurug Abdoulaye Wade Aminata Lo Dieng lay wuyoo teg nañu ko loxo alxamis ginnaaw bi nga xam ne nag dafa génn waxtu woo xamante ne booba couvre-feu bi door na ginnaaw ba mu génnee nag ñu teg ko loxo yóbbu ko fa nga xam ne mooy gendarmerie bu Wakaam ba mu fa nekkee fanaan fa ba démb daa yëkkati nag ay kàddu yu ñagas nee nañu teg ko ci kaw njiitu réew mi lu nu mel tax ñu wóoluwaat ko ngir tegaat ko loxo loolu nag rakkam bu góor moom koy ñaawlu gis ne mbirum politique képp nag moo la laxasu dañu koy déglu ci micro bu Evelyne Mandiouba. tey nañ madame le ministre Aminata Lo ci gendarmerie Wakam ñu ne dafa offense au chef de l'État lañ ko jàppee kon ñuy wane ni tey fii ñu tollu deux mille vingt et un ñu ngi gis ni tey liberté yi nga xamante ne tey sénégalais yi am nañ ko tey ñu ngi ñu koy xañ parce que tey kenn amul sañ-sañu wax ni président de la république sa bët bi suuf a ngi ci kon donc di xam ni moment bi ñu toll l'heure est grave dañuy wax Covid mais l'heure est grave parce que tey ñun suñu àq ak suñu yelleef ci Sénégal fan Macky Sall nee na kenn du wax kenn du génn kenn du nooyi kenn du def dara kàddu yooyu nag nga xamante ne moom Lamine Lo moom moo ko daal di yëkkati ñu wax ci leneen jëm ci rek wàllu ko càmm ñi nga xam ne ñu ci yëngu ak yar leen loo xam ne euh, bokk na ci li ñuy dundee ñamte ñoom nag nee nañu dañuy wan ginnaaw li nga xam ne mooy lenn ci ay aliment wu ko ak bétail li ko waral mooy njëg li lool ñi cay yëngu nag nee nañuy njëg li yokku gi teguñu ko fenn ba tax na njiitu fédération acteurs yi yëngu ci filière avicole moom daf ko daal di ñaawlu ka nga xamante ne moom mooy seen i mooy Serge Sadio moom moo ko daal di jiite ci micro ñu déglu ko ci micro bu Simon Pierre Faye. industriels yi jël nañu seen décision lenn rek moo fi sos xeex bañ nangu décision bi nii ñu jël li ñuy def du dëgg du yoon ñoom ñëpp tey ñu nekk ay milliardaires si sunu kaw la jaar si sunu liggéey lañu si sunu ñàkk la am li ñu am tey di fàttali ni rek trois ans ci ginnaaw njëgu matière première yi wala bokk intrants yi jarul woon dara amul kenn si ñoom ku la ñun mais combat bépp éleveur Sénégal te lii bu ko kenn nangu su ko jaree ñu boycotté seeni aliment ñoom ñëpp bu kenn jënd mu jeex tàkk dem ak dikk bi jëriñ ju ñu ko dégg nag jël na dogal ne moom dafa fas yéene ñu dem ci tolérance zéro nañu ko yàggee wax li ko waral mooy accident bu metti boo xam ne ma nga am ca diggante dàgg jaxate def na lu toll ci juróom-ñeenti nit yu ñàkk seen ko bakkan Mansour Faye wax ne faaw rek ñu jëli daan yu tar teg ko ci kaw ñiy faral di indi yooyu accident dem na sax ba gis ne dañuy faral di nangu ki nga xamante ne moom mooy licence su oto bi lu nu mel nag ñoom ñi nga xam ne dañoo bokk ci syndicat ñu di leen syndicat national transporteur routier te bokk ci synthèse authentique la ñu xamle bokk na ci Pierre Mbaxaan Gomis mooy duñu ko nangu benn yoon ndaxte nag oto bi ki ko moom yoonam nekkul ca ka nga xam ne moom mooy dawal ndax bu fekkee accident am na kay dawal la war a doon ñu déglu ko ci micro bu Fatou bu Safiat bu Fatoumata Diop maa ngi jéggalu dëgg dëgg neex yàlla dégg nañu nit bu mu wax bu fekkee dafa jóg rek pour xeex réewante xeex ñàkk yàlla xeex ñàkk kaaraange war nañu ànd ak moom ànd syndical bu fekkee tam xeex ci ndax du yoon mais bu fekkee tey bi nag oto dafa accidenté borom oto bi jënd oto état jox ko agrément pour mu am sañ-sañ transport public de personnes ou de marchandises jël ceeb jox ko oto li nga xam ne moo leen liyee muy contrat de travail muy certificat de travail mu jox ko am licence bi nga xam moo ko am sañ-sañ boobaa borom oto bi nag bu fekkee néew ci oto bi dawlu oto bi yoonam nekkul ci oto bi accident oto bi bi ko raw mooy responsable oto bi moom moom moo commettre infraction ba accident am ci nangoo licence am ko dafa mel ni kon jaay doole lay juróom-ñetti waxtu tegal na juróom-ñetti simili yéen a ngi taataan xibaar yi fii ci Ndakaaru 89.7 ca Touba 93.8 fépp yéen a ñu déglu ci réew Sénégal professeur Malick Ndiaye nag yéen a yàbbi ci mbas meek tolluwaay wi rawatina ci université Cheikh Diop bu Ndakaaru bel na lool ñu ko fa am ba yenn ci ay département dañu ko daal di tëjandi ñu lu mel nag nee na la ko waral lenn képp la ñàkk jox ca protocole sanitaire bi ba tax na faaw rek ñëpp àndandoo foofa ci université bi doon gennuk say ngir mën a fexe ba faagaagal feebar bi bi professeur Malick Ndiaye ñu déglu ko ci micro bu ndey Ndeye Dimet Ndaw léegi am na benn professeur bu am doole am yar am tey bu wax ne étudiant bi njëkk gaañu université mois de septembre la woon dañu war a woo ñëpp ak toog ak étudiants yi toog ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci bureau yi maanaam personnel administratif bi ak syndicats yi SAES e les camarades du sud-est amicales yi na ñëpp daje université waaye bu mu yem ndakaaru rek kon nañu daa di delloo réew mi baatam waaye topp fii di wax ay masque ay lii ay laa pétrole du ko régler professeur Malick Ndiaye moom nag yamu ci yéene yàbbi ci meneen mbir di rek mbiri Boubacar Seye mi jiite ONG Horizon Sans Frontières te nag ñu daal di koy téye moom professeur Malick Ndiaye ma ngay daal di addu di wax ne moom mi nga xam ne mooy Boubacar Seye wér-gu-yaramam nag dafa teg tagga téeméer ba tax na danu ko war a bàyyi mu ñibbi ca këram te nag li nga xam ne moom la ñu ko woowee dafa sax nag jar tawoo te li nga xam ne moom la ñuy def saa su ne dafay indi ay dérive maanaam yegg ci foo xam ne dañuy dem ba dootu dootuñu mën a wàññeeku ci ñàkk jox cër ak ak yelleefu doomu aadama professeur Malick Ndiaye ñu déglu ko ba tey. Boubacar Seye lan la def bi ñu feebar bi ñëw na ca Chine Boubacar Seye rek horizon sans frontière moom moo ne addina bi yëpp attention bu génnee Chine rek egsi na Sénégal ñu ne ko ndax lan mu ne leen ndax migrants yi émigrés yi commerçants yi chinois yi fi ñëw ak yooyu kon Boubacar Seye boobu nañ ko daal di sargal maa ngi laaj Idrissa Seck maa ngi laaj sama camarade président muy Macky Sall war nañu jóg léegi tout de suite pour que Boubacar Sèye ñu génne ko fi mu nekk. ñu wax ci li nga xam ne moom mooy jàngub élèves yi élèves euh, tu ndongo yi ñoom nak dañuy war a nekk ci vacances benn ayubés lu nu mel tax na yenn ci ay waajur ñoom ña nga am ci tënge ak njàqare ndax nañ la ñuy teewee seen i njaboot ci biir kër gi jamono joo xam ne mbas mi mi ngi gën a def fi jéego ñu ànd ci ak reportage bu Fatou lay Mbaye Diop jël nañ fête ba le 8 février. mu tàmbalee ngir benn ayubés ci vacance ngir élèves yi mu doon vacances yoo xam ne mi ngi am ci jamono ji nga xam ne lii di coronavirus mi ngi lëmbee quartier bi ci Grand Yoff bu ñu mënul téye xale yi ci biir kër gi ñoom waajur yi dañuy gën rek dëgëral li nga xam ne mooy mesure barrière yi. moom dina metti du metti dëgg yàlla am am naa samay presque juróom-ñaari bant ñi ngi jàng. te xale yi comme jël nañ feet ñoo ngi jël matuwaay naka jekk sax waaye day yokk waat ci kër yi te ñoo ngi jéem lu ñu man pour man leen a téye ci biir kër yi. bile immigré moom lu ko gën a yitteel rek mooy gën a xam xamloo ñi di ndaw ñi nekk ñi di mag ñi dañ leen war a. c'est wax leen feebar bi naka la mel. man de toutes man je suis dans la maison su ma nekk si biir kër gi suñu yaay mu ngi fii suñu yaay. nekk loo xam ne yenn ci waajur yi ab jafe-jafe lañ koy dundee li koy firndeel mooy xale yi tàmbale nañoo génn ci mbedd bi ñu ñëwaat ci ndakaaru ci arrondissement bu Niayes district sanitaire bu Kër ma Massar bokk na ci nga xam ne mbas mi laal na leen lool Kër ma Massar nag nekk ci département bu Pikine bu ndee seet ci xayma taux bi ñi nga xam ne am nañu ko mi ngi toll ci ñaar fukk jëm ñaar fukk ak ñaar téeméer boo jël wuute ak vague bu njëkk bi nga xam ne téeméer boo jël fukk ak ñaari nit pour cent ñoom ñoo ko daal di woon lu nu mel moo tax ba démb nag foofu ci Kër ma Massar dañu faa fas yéene songu ñaax askan wi ci yenn bërëb yi ñuy liggéey ñu ànd ci ak Idrissa Diémé huit cas yu bàyyeeku ci wàllu transmission communautaire loolee ñu am ko di wane ne que rek district bu Kër Massar bokk na ci bu gën a impacté ci wàllum Covid bi ci département bu Pikine li koy findeel sax bu ñu defee xayma ci diggante première vague bi ak ñaareel bi résultat yi tiitlu lool docteur Bouna Ndiaye nekk médecin chef bu bile district. première vague bi taux de positivité bi ça tournait autour de douze pour cent mais léegi deuxième vague bi ñu ngi presque ci ay vingt pour cent vingt deux sax j'allais dire jàpp nañ ñun taux d'attaque bi deuxième vague bi moo raw fuuf taux d'attaque première vague bi moo gën a tar moo gën a métti ci boobee xeex approche communautaire faaw ñu gën ko kantanal loolee sax tax ba association ECOS ci loxoom Siré Mountaga Dia nekk médecin ci wàllu santé publique. lu ñu mën wax population yi pour que ñu dugal seen loxo ci xeex jàngoro bi bari na kon bu ñu leen motiver noonu ñoom seen bopp mën na ñoo jógal seen bopp ngir fànq jàngoro bi. ak fu ñu toll nii kenn warut bàyyi loxoom di kàddu Matar Mbengue di ku ñu toftal ci meeru Kër Massar. ay plan de riposte. kon yooyu yëpp dinañ ko gën a doxal. dina ni que rek ñu respecté li nga xam ne moo nekk geste barrière yi bu ñu bëggee jàmmaloog Sarr Zik FM. Idrissa Diémé mbas mi jamono ju ñu koy tudd ndox doon lu ci am solo waaye askan wa dëkkee ca Sibassor ñoom gisuñu ndox jafe-jafe goo xam ne nag tax na ba nu am ko ngir mën a jaamaarloo ak mbas mi ndax ay seeni robine ay weer a ngi nii benn toq ndox wàcc fa askan wa nag démb wàcc nañu di wooteek wàllu ngir rek ndox mi dellusiwaat ci seen diwaan dañu dem ba kaw Kaolack fekk fa Aliou Aliou Kane moom mu nga xam ne kon daañu ci ñëwaat xëy na ci wala boog bu fekkee yemb na ñu daal di daañu ci ñëwaat ci sunu yeneen jataayu xibaar kon xibaar yi pàcc bu njëkk bi jeex na ñaareelu pàcc xibaar yi benn ponk rek la muy biti réew. xibaaru biti réew. ca réew bu France moom dañuy fas yéene tëj seen i ay frontières ak yéen i dëkk yoo xamante ne ñu ngi bokk ci Union européenne loolu nag dañu ko daal di xamle waaye motif ba moom leeragul ngi naaw bi nga xam ne nag luñ ca jublu leen képp la fexe ba mbas mi ñu mën koo dakkal ki ko xamle mooy premier ministre bi di Jean Castex moom nag nee na altine daañu fexe ba lépp loo xamante ne bërëb la yu ñuy dajaloo ki grande surface yi daanu xool naka la ñu yokkee matuwaay yi ngir rek mën a xeex mbas mi foofa ca réew bu France commission européenne européenne bi nag démb ci ngoon la daal di fexe euh, wax ne vaccin bi di AstraZeneca Oxford bi nga xam ne da moom mooy feexee xeex mbas mi euh, daat nañu ko nangu ngir rek mu doon loo xamte mën nañu koo dugal ci vaccin yi ndax bokk na ci li nga xam ne gisoon nañu ko ci weeru ko décembre di euh, Pfizer ak Moderna yi nga xamante ne te weeru janvier la ñu ko gis waaw kon yokkaat na ci mu doon kon ay vaccin yoo xamante ne moom la ñu yaakaar ne moo mën a indi pexe ci mbas mi nga xam ne te it boobu léegi muy faagaagal ñu bari eh, ci àdduna bi ak variant bu bees bi nga xamante ne feeñ na eh, ci lu toll ci juróom benn fukki dëkk ci àdduna bi kon xibaar yi buur na ñu fàttali leen lan moo ci gënoon a fës nekkoon na fi ay jamono ministre ci nguurug Abdoulaye Wade Aminata Lô Dieng dañu ko daal di teg loxo ndax ñàkk jox ca couvre-feu ba mu nekkee nag fanaan foofa ca gendarmerie bu Wakaam daa yëkkati kàddu ñu jàpp ne ñagas na lool teg ko ci kaw njiitu réew mi Macky Sall tax ba démb ñu wooluwaat ko tegaat ko loxo fas yéene ko yóbbu mu daal di dem ci kanamu attekat bi altine xibaar boo xam ne nag ko ko dëggal di rakkam Lamine Lo déglu nañu ko ci biir xibaar yi professeur Malick Ndiaye ma ngay dànkaafu ngir ñu jox cër bu baax a baax mesure barrière yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu doon mbas mi dugg fa tax ba yenn ci département ñu tëjandikoo faaw rek ñu àndandoo den gënu say rawatina ci këru jàng bu kawe gi ngir mën a jàkkaarloog mbas mi di ay kàddu yu professeur malik Ndiaye yokkute ci njëguk aliment volaille ak bétail ñi nga xam ne ñu ca yëngu ña ngi koy ñaawlu di xupp ne ku moy wul sax daanu ko wan ginnaaw teg nañ cee benn ponk ci xibaar yi di bi ci réew xibaar yi buur na Fatou Abdou moo nekkoon ci kàddu bi